ay weer ndax Saa Wolof demoo ci agence bi waa waa agence bee ñëwut. waaw est-ce que agence man de sama agence bu fekkee ne dañoo yónnee mooy dafa fekk ñu bëgg maa tëj wala nangam nag. Mhm. ñoom ñooy toog man maay dem saa yu may dem fekki leen waa ji dafa dem borom kër gi moomam këram waaye au lieu sax mu di la ko laaj ak yooyu sax affinité mën a am dafa dem ci agence moom dafa am lu mu leen di fay. agence boobu taxaw di la xaar si nga war a fay mais nga toog ñetti at fayeeku wuñ la loolu dafa tekki ne yaa ko loolu ku ko def sàcc nga aveu la ma jambal bu waxee loolu day avoué ne ab sàcc la lii mooy li am li Ousmane ko wax keneen mënu koo dindi te loolu sàcc képp la mën a signifié te nag bala nga koo mën a def foog nga doon ab fenkat nag parce que sàcc mu raw moom nit ñëw sàcc boo sàccee nit nit ñëw ne la ku moom lii te gars yi sax ñu ngi wax di indi aaya boobu ci yonent bi xam nga dafa am loo xam ne dafay am sens. Mm-hmm. gis nga fen boo ko bàyyi bu ko ñëpp bàyyi woon sàcc dootut Euh, naan sàngara dootut am. Mm-hmm. rey nit dootut am. waa ji bi mu duggee ci baar bi ñu def loo mu ne ko ñu ne ko boo génnee ba mu duggee ci kër goo xam ne kër gu kii la daal gu doy wax dañ fay jaay nangam ak nangam. Mm-hmm. tey nitu yàlla ñu ne ko boo génnee ñu yuuxoo ne da ngaa def nangam ak nangam muy xalaat réputation ñu ne ko xale bu jigéen baa ngi ne da koy tëddi wala nga rey xale bu ndaw bi wala nga naan kaas sàngara bi mu daal di xool bi ci gën a oyof naan kaas loolu xabtal ko mu. tëdde ndaw si rey gone gi fen noonu la mel hmm. maanaam boo koy def mën ngaa sàcc mën ngaa ku yegg ci sàcc rek xamal ne fenkat bu mat sëkk la maanaam ku yegg ci mën a sàcc wala mën a rawale nangam xamal ne kooku ab fenkat la moom ba pare léegi nag ñu ñëw ci wax ji bu dee Ousmane Sonko ko moom mu ne sax justice koo xam ne dangaa fen ba justice waneen dangaa fen waa d'accord nañ ci dem lan moo tax justice ne Ousmane dangaa fen mooy Mame Mbaye Niang Ousmane Sonko daneen dafa am rapport bu buñ ko tudd buñ ko joxoñ baaraam. Mhm. buñ ko éping bu ko épinglé. moom mu taxaw ne amut. Mhm. Cheikh Yérim toog nee na justice dañoo réquisitionné maam dañoo dem sax wax service yenn yi comme IGE ak IGF ak yooyu. Mhm. bañ xool ko ne leen existé wut ñu doog a dem topp Ousmane Sonko moom dèjà fen na Cheikh Yérim fen na. parce que li wee li feeñaat ginnaaw bi jëmmi Mame ñaar rek weddi na loolu. Mhm. léegi justice moom ah kooku nit la rek. nit la rek comme nit ñi. comme ni nga jàppee ne Ousmane Sonko mënoon naa fen mais ab juge tamit mën naa fen. Mhm. juge mën naa bañ a fen ñu indir ko en erreur mu jàpp ne li kiy wax dëgg la parce que yonent bi am na ku mu joxoon dëgg kooku di kii mu ne ko mi ngi mel ni àq laa la jox. maanaam nit laa comme yéen damaa xool éléments yi ngeen ma jox daal ci sukkandiku àtte mhm. waaye na la wóor na mel na ni xalu safara laa la jox bu dee amoo dëkk mhm. loolu mooy wax ji mais kon wax nga xam ne kon xaadi bi maanaam àttekat bi. Mhm. benn mën naa doon ko jubadi di fenkat dèjà sax yàlla sax wax na ko maanaam yonent bi nee naa nee nañu àttekat yi ñett lañ. ñaar yay dem safara benn bi dem àjjana ñu ne ko ah ñen ñooy dem àjjana mu ne ki ki ki xamul di àtte. xam ne xamul ba pare di àtt safara ak ki xam ba noppi xam ne lii nangam la mu daal di koy ñëw àttee kenn na ko neex safara waaye ki xam ba pare xam ne lii nangam mu àtte ko ci yoon koo koy dem àjjana waaye léegi boo dajeek àttekat boo xam ne jubut nag ñu indi ay fen mu fenloo ki fenut léegi bu demee ba leer ne léegi kiñ fen la woon fenul ku fen keneen ka toogoon ci wet ga moo fen ak moom ma àtteek ñeneen ñu ko masoon a gëm ñëpp bu amee ñu fen ñoo fen loolu voilà la réalité. timing bi moo baaxut. timing bi mu toog maanaam dama ko jox exemple xam nga li ma wax nii dama seetal naa ne àttekat mën nañ ko indi induire en erreur. Mhm. wax ma benn yoon ne àttekat bee fen mais dama ne su fekkee ne moo demee nii nii lay demee. Mhm. maanaam tey mbooleem ku jàppoon ne usmaan moom daa fen ba nga doxe ko waxe ko boo ko doxee waxee rek yow yaa fen mhm. kon diggante Bougane ak Ousmane du ma moo tudd baatu fen su amee ku fen. maanaam bugaana fen parce que li mu wax ay fen la soit maanaam Ousmane na ci parce que du càggane justice moo la wax li nangam mais li am après ba document bi ñëw tege sa table. Mhm. wane ne rapport am na mais rapport am ba pare nit ñi xam ko tegal la sëggandee ak siggidee li ñu waroon a def tey mooy daal di woote nangu usmaan indi ay témoin ba ci waa IGF tey ñu bàyyi leen seen kii ñu sañ a ñëw témoin mhm. mais am na témoin yoo xam ne demoon nañ volontairement. ku mel ni Birahim Seck ak Clédor seen mhm. kenn ku nekk wane ne maanaam rapport bi lii nangam kenn dégluwu leen ñu doon liggéey ci product sax am na si ñoo xam ne pare nañu pour pour indi ay leeral ci loolu. waaw léegi yow yëpp am ab àtte boobu nga xam ne yow li nit ñi mën a wax mooy jaarut yoon yow nga taxaw tey nekk kii moo fen bu amee ku muy seeti. ku muy gis te bu ñu doon soutenir Ousmane Sonko. ci non masu ko soutenir dama ne. procès Mame Mbaye dama ne soutenir ko ci suuf. dem ne waa ji na dee leneen la bu dee di kaaw aji Sarr du taxaw nañ fii xëy dégg euh, François Hélène Guèye ak euh, Gabriel Kane di xuloo kii naan ko yaa def nangam ba ñu buggaan woowee ñu buggaan wooyee ñooñu tey jàppale Sonko surtout ba yu noonu boo séenee sa xarit sol ko. Mm-hmm. lu ko ca jotale sab der setu ci bàyyi caaxaan nañ opposé mais nañ ko teg ci dëgg mm-hmm. bu ñu tax a wax alors euh, kaaw euh, Maimouna Ndour Faye ba tey ci ci ay waxam cest à euh, lu waral set form bi nga xam ne nii moom moom la ñuy moom la communiquer ngay euh, dégg ñuy wax Ousmane Sonko ragaluñu la euh, bu fekkee dañ laa wax ne ñun dañu laa ragal ak mënoo ñu mënoo ñu xoj ba duñu dund am nañu feneen foo xam ne war nañ faa mën a jëlee dafay benn mbir mi dafay mujj au-delà de nekk benn combat wu presse mais dafay nduru benn combat wu opposition en quelque sorte boo xam ne moom la ñu mën. am na feneen fu mu mën a dundee parce que lii muy wax caaxaan yi muy wax waxi dof yi su ko waxee faaw nga dañ ko kumpa te YouTube day fay. fay mooy youtube bi rek place Walfadjri la jël léegi amul benn problème <laughs> léegi bu fekkee ne maam dafa jël defe ne youtube moo ci des. Mhm. mais nit ñi nag pare nañ ci seetaane caaxaan de bañ koy defal Walfadjri dañu yaakaar dafa nekk ci dëgg dañu xam ne moo nekk ci dëgg sax laay wax ñu di ko defal ñëw di ko defal nangam ak nangam mais dama ne la powum xaalis du yàgg nañ teg seen mbir ci yoon. état bi it na teg mbiram ci yoon. Mhm. mooy publicité yi su ma mënoon a subventionné wane capacité am. Mhm. ak Walfadjri su muy sone bu fekkee ne may mun naa ko ci gën a yell nañ ko ko jox. parce que nag li fi doon am waruñ koo doxal mooy day ñii di xool presse bu ànd ak ñoom ak bu ñu àndut ak ñoom. Mhm. loolu laa ciy wax rek mais daal li mu wax pour man yaakaar na ne Ousmane la ko def mais jël combat bi nag tuxal ko ci Ousmane pour muy yàgg usmaan dafa am lu lay yokkal daal. Mhm. loolu moo tax moo tax xam nga. waay voilà. léegi itam ñu gis ab euh, communiqué bu coalition sa bopp boo xam ne daal. euh, Bougane Gueye Dany ici ont exprimé leur déception sur la baisse des prix des denrées alimentaires leur désaveu face aux récentes initiative de déguerpissement. non nañ taxaw foofu ci baisse des prix yi loolu kañ la ko def communiqué bi. communiqué bi démb la. démb la ñu xëy ñetti dërëm yi ñu waroon a wàññi ñu dolli ci. Mhm. xam nga ba Bougane saa su nekk day am catul timing. danaa wax far Macky Sall xëy wax le trois boobu. Mhm. say wax sa safeetu nga jékki-jékki taxawoon ne. gars yi sëkkatal la Pape Makhtar Diallo laaj la. Mhm. erreur bi nga defoon 2000 nga ne man anti système laa. Mhm. anti système laa mën a jàppale. Moussa Diop Moustapha Diop rek préciser ne la su fekkee ne le vin dañuy jàll joomaay ñu ne joomaay la mu ne loolu jarut a wax moom laay jàppale. Mhm. mais ñu ñëw ba ci élection yi nga ñëw taxaw ne su deuxième tour am daal ne man yeewi naa leen même boo ci tegoon ne man bugaan xasoon naa wax ba pare joomaay laay jàppale yéen ñu ci des yeewi naa leen sax ñu mën a wax waaw mais dèjà da nga wax dèjà lu dul te yonent bi nee na ñetti jikko yi fu ngeen ko gis. Mhm. am naaw feq la. ku ci am dara xamal ne am nga lenn ci jikkoy naaw feq. mooy boo ko wóoloo mu war la wóolu woon nañ ko ci ne moo ñu waxoon ne. jo parce que man may nekk ci coalition bi dama ne woon ñett ñi buñ ñëwee keneen ku ñëwut garaawut parce que Bougane man ñëpp xam nañ dama ko estimé. Mhm. muy Bougane Gueye Mimi Touré Abdourahmane Diouf man kon waxoon na ma ne man li ñuy wax yëpp dama ne leen buggaan day ñëw. Mhm. diw de parce que xas na wax kàddoom. sëñ Cheikh Gaynde ma way juru sëñ Mbacke soxna loo mii wasilaam nee na nit gor gor la. Mhm. ba mu wax waxagut waaye boo xasee wax noppi ngaa doon gor li nga koy jafe maam yeew nga sa bopp. ci mhm. buum ba ba ngay jëfee li nga wax. kon bugaan tey loolu tey sëñ Cheikh Gaynde Fatma waxoon sa bàyyi wasila ak yonent bi li mu waxoon ci jat gannaaw feq mooy bu loo boo la boo ko wóoloo mu war la. Mhm. man wóolu woon naa la ci loolu sa askanu senegal am ñu la ci wóolu war nga kon warkat nga. su la joxee rendez-vous faussé ko jox nga ñu rendez-vous ba tey boobu bi nga ñu joxoon faussé nga ko. Mhm. loolu ba tey ci naaw feq la bu la bu la boo bu la waxee fen la mooy li nga waxoon defoo ko mooy buggaan fen nga kon naaw feq nga parce que yonent yàlla moom du ah moo ñu tegal critères yi de. Mhm. te li mu wax nii it sëñ Cheikh Gaïndé Fatma maa ko wax li ma wax fii. Mhm. te mooy wasilaam. te lim doon wax nag nit ñaa ngi koy dégg man aw ma ci problème bu leen neexee ngeen ne non insolence wala nangam nag mais nit du ma wax ne li may wax damay fen mhm. parce que dëgg la ñëw na fii parce que bu ji ku jéem ak euh, li Thione sekk doon wax naan xawma ma lan ku jee doomi bàyyi loolu lu yàgg la maanaam waaye ku jeeg Ousmane Sonko Ousmane moom lu yàgg la mooy problème bi mooy dafa nangu dogal Bougane yaakaar na ne ku amut da ngaa ci ni muy doxee démarche am loolu lay wane. ñëw na mille Ousmane 2018 génne livre mu nekk ci benn ndaje ne vous me parlez de livre am na ku bind livre ngeen yaakaar ne Sénégal. programme Sénégal maanaam am na jotu liir livre nit di bind nànkam mais ñu teg ci 2018 ba 2023 nga bind livre tekki. quelle contradiction li may wax ni moo ko def wala defu ko <laughs> moo ko def. xam nga. boobu jamono mi ngi defoon benn xeetu programme bu ndaw nii quelque feuille. Ah, ah ba pare di ŋàññe nit ku bind livre tey fekk si na ko ci livre moom wane na ne moom Ousmane Sonko mooy mooy mooy mooy waaji ah. léegi nag problème bi mooy moom lii muy def. Mhm. dafa am doublement dafa am loo xam ne chef d'entreprise la xam na ne am na yuy ñëw ci kanam. Mhm. te yooyu dana romb. mais ci ci façon ñëw nii ci kanam. Mhm. dina romb problème mu état bi. mën naa jéggi sax ba dem ci session wu PDS. d'accord te bu boobaa dana am dana am om d'affaires yu mu laal nag. ci façon ci façon bi muy opposé wu mu am yenn yoo xam ne daanaka dafa def combat boppam maa ngi lire léegi que Bougane Gueye Dany yi aussi ont exprimé leur déception sur la baisse des prix des denrées euh, alimentaires leur désaveu face aux récentes initiatives de déguerpissement des commerçants de Colobane Petersen Kër Massar et Sandaga dans un communiqué parvenu à la rédaction de Sénégo euh, la dite coalition apporte son soutien au détenus du camp pénal de Liberté 6 voici en intégralité le le communiqué peut-être duñ ci ñëw mais en tout cas euh, yooyu soutien la la indi lu jëm ci déguerpissement yi mu mel ni kuy rangé wu du côté des commerçants. ci mécontent yi xam nga mécontent tamit ku nekk mécontent da nga war a xool ci li ko ñàkk bégloo est-ce que futam la wala njuumteem la wala yow boo nekkoon ci réew mi nooy defeek ñoom mhm. est-ce que tey détenu yooyu muy wax dañu révolté ci fuuy bu ñu leen teg man leen laay njëkk a wax mhm. mooy ay téléphone moom suñ ko gisee ci biir néegu détenu yi garde yaa fa yóbbu mhm. parce que ñooñu génn ñu dem bu buñ dee génn it garde yaay tax ñu génn kon seen complicité képp la mën a am lañ mën a xool ba téléphone yooyu di fa dugg seen faute la ñoom loolu dañ koy njëkk a wax wax détenu wax fuuy ak rappel. détenu boy buy bañ ñu fuuyee rek moo lay xamal ne la nekk ci biir lay nëbb. d'accord léegi nag bu régime amee régime bu fi nekkoon daan bàyyi ay téléphone di dugg. Hmm. am yeneen ak yeneen yuy dugg ak nangam loolu ak njubadi la léegi bu fi ñuy ñëwee tey di setal loolu parce que loolu du sécurité. Hmm. parce que boo bàyyee lu nekk mën a dugg ñoom mën nañoo rayante seen biir. wala mën nañoo jékki-jékki nga am koo bëgg a liquider. koo bëgg ñu rayal la ko koo bëgg ñu rayal la ko ci biir nit mën na ko rayal. Hmm. ak yeneen ak yeneen yu ñuy wax yoo xam ne mu ngi ci biir. léegi nit bu ñëwee ñu jàppee yàmbaa ci biti muy dem ci biti ko fa moom ndax jàpp gi am na mais loolu yëpp lu ci mën a wax mooy garde yi nga koy teg ba pare parce que bu du woon garde yi loolu du dugg. Mhm. moo tax boo doonee kilifa ci ni ngay raisonné képp maanaam bugaan ne dafa dafa daf comme xale bu ndaw quoi yi fi xale dafay def yu enfantin quoi lii du ko yëkkati maanaam dafay percer ci lii pour jàpp ne dañu mécontent mais nit ñi dëgg nga war a siq ak ñoom bu fekkee ne tey benn commerçant boo xam ne da nga nekk foo xam ne tey mooy ñi def cantine xam nga tey tali trottoir tali. Mm-hmm. du pour nit. Mm-hmm. mais dangay gis fii nit ñi di dox ci tali ba pare di la def nii. man dama bokk ci li nga xam ne tali bi dañ ko war a assainir man loolu laa gëm. Mm-hmm. dama gëm ne tey suñu mënee xoolaat kër yi traversé ba ñu jëlaat cantine yi génn nii jëlaat ko dugal ko ci biir kër yi xool nañu leen mën a def. bu mënta ñàkk mais problème mu Sénégal xam nga lan la problème mu rural la problème mu Ndakaaru. ndakaaru ci boppam mooy problème mu Sénégal te waroon nekk solution mm-hmm. man foofu damay wax nit ñi lii ñuy def ci mbay mi nañ ko continuer parce que da nga mun mënuma d'accord nit ñëw fii raxas oto man koo may lu ko tool mayut mm-hmm. mën a ñëw fii ambulant yor quelques bagages man laa may lu la ay tool mayut mm-hmm. te ñu am tool suuf su bari suuf su waa siiraas ah. man laa may lu la tool mayut te fuuta boori fuuta nga xam ne surtout sama mbokki yaay ñoom ñoo gën a mën a nekk ci siraas daanaka ñoom ngay gis wet googu ñoom ñoo fi nekk di siire mhm. mais foofu nafa ceeb nangoo nafa mboq nangoo man keroog sama benn xarit Abdoul Ba mi ngi États-Unis maa ngi koy ziar bi mu ma wanee iwilu mboq diw diw diwlin buy jóge ci mboq ni mu seeree bokk na ci diwlin yi gën a seer ba pare mboq nga man cee am aliment man cee am leneen ak leneen ak leneen kon bu ñu fexee ba tool yi ñu nekk ci exode rural am nit dootul ñëw fii di la sonal da nga bëgg ku la siireel c'est tout un problème kon bu boobaa ay magasin wala ay boutique comme ni ngay gisee boutique buy def ñiy wat bu boobaa yooyu ñëw lay siireel su nga dem jàll fa def li ngay def mhm. dëkk bi am na lu ko mën a développer loolu la ñu war a mën ko tey man bu ma doon ku doon Bougane tey bu fekkoon Bougane am na xam-xam li ñuy wax lii yëfi dof la gisoo benn opposition bu am njariñ wala bu am doole di langaamu ci ay ay ambulant maan wala ay commerçant yu ñu déggee pire wala ay nit yu nekk ak camp par exemple ñu leen di fuyee problème am ngay ñëw di appuyer foofu naan maa ngi seen ginnaaw wala yu demee noonu. benn non non non kum la may ola mooy danga nga ñëw non da ñëw dugg ci ànd ak moom ci lu dul dëgg moom mu dem ànd ak moom bu toogee toog dana xam ne doo nitu dëgg xam nga luy wax ji. man xam lu ma gëm. wala ay sëfoor ba ba tey maa ngi koy dégg yu ñuy wax nangam naa mais sëfoor yi tey. oui ak li xew doon doon na dal itam ci communiqué bi ci euh, le ministre des transports El li mu def ci wàccaayu tabaski. waaw li mu def ci wàccaayu tabaski lan la def. ñëw ne man toog naa nit koo xam ne waa Pastef la jóge Canada nee na sëfoor yi li ñu def waruñu teg benn dërëm ma ne ko de d'accord ci mën nañu dolli mais li ñuy dolli mën nañu ba ne bare. parce que bu ma ne ko problème mu Dakar. Dakar mooy problème mu Sénégal Dakar foo xam ne benn buntu la. Mhm. nit ñëpp daje fi bu ñuy génn problème dana am. Mhm. tey nit dana génn nga yeb dem Touba mais booy ñëw man ngaa bañ a yebaat mën ngaa yeb nag. waaye liy jàpp mooy à quatre-vingt pour cent de sens mooy euh, de mal sens mooy doo yabaat. Mhm. léegi kooku tey bu doon yabee cinq mille francs mu teg ci mille cinq cent wala mille francs loolu c'est raisonnable te pourtant même même le ministre loolu la wax. loolu la ànd mais nga daal di koy doubler. mu wax la ngeen daal di génne seeni oto di ko jaay ne ko yéen yéen ko xoj loolu nag mooy sa indépendance tey mm-hmm. bala nga koy am da ngay mën a xam ba pare sañ ñu xam ne yow da ngaa ñëw pour réguler mais ñëwoo di jaay doole mm-hmm. léegi nag loolu mooy biis yi nga am autant de biis yi nga am nga daal di ñëw teg ko yeb ci nit ñi ñu daal dem ñëw beneen yoon boo leen wooyee ci table de négociation danañ toog lan nga gis après. Mm-hmm. gisaan nga sëñ góor xuma li mu wax te li mu wax loolu dëgg la. garage clandestin yi problème la. Mm-hmm. nañ leen jël yëpp ñu dem di dem di départ. boo maraîcher mm-hmm. ñu gën a yàkkaliwaat affaire yi teg ko ci yoon ba nga xam ne duñ fa yàgg. même booy voyager indaale xaalis li góor xuma wax man loolu laa dëgg loolu laa gëm père góor même booy voyagé xaalis nga xam ne nan ngaa yor benn nga dugal ko foo xam ne nii dafay nekk dañ la koy dugalal mu nekk transfert boo yeggee fekk ko fa coupure de route yi dootut am. Mhm. mais di jéem a profité ci problème mu Sénégal wala morom meru Sénégalais du noonu loolu politiciens yi enfantin yi ñoo koy def ku mel ni Trump Bougane képp ñoo koy def parce que moom war na xam ne ni muy politiquer nit ñi dañ lay jéppi parce que problème mooy dañuy dèjà dañ xam ne da ngaa fuuy da ngaa yëg sa bopp mais amoo xam-xam amoo xam-xam mooy yow moment booy état buy doog taxaw nga koy opposé ci lu matagut a gudd jours. ne koy def naan tey dëgg. Ah, am na ñoo xam ne ay Barthélemy Dias yi ak ñooñu da nga leen dégg. Khalifa Sall da nga koo dégg ñeneen ak ñeneen da leen dégg ñooñu dañoo dàq Bougane da leen dàq politique du moom mi ngi nii bu mu demee jàllul parrainage Anta Babacar sax xanaa déggoo ko ci yu mel ni yi muy wax nii ñooñu au moins am nañ lu ñu tekki seen seen bopp bi da ngay xam ne daraa ngi ci. mais li bon man nag xam nga moom dama koy bàyyi ak oustaz ceeb. d'accord parce que oustaz ceeb moom comme moom nee ci ci kiyam bi lay tàngale kafe d'accord nee naa ko fu la buggaan jàpp nga xaw a dee. <laughs> d'accord alors ñu ñu ñëw ci euh, visite bu président de la république fële ca euh, France mu daal di teew déjà euh, jàkkaarloo diggante le président Emmanuel Macron. ak le président Bassirou Diomaye fay ban appréciation. man man man est-ce que du ma yónnee bisu benn image.